mbokk yi déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub mu tëral nu ngi dellu di sant yàlla ci li nu leen mën a dégtal seen émission yoonu njub mbokk yi ñu déglu déggoon ngeen ni yeesu ci boppam xamle woon ne dina si te ba tey kàddug yàlla ngi nuy xamal ni almasi bi yeesu nara ñëwaate ci tukkital àddina ngir àtte ñi bañ a gëm xabaar bi yéesu yëgle mu ne ndigalu lu jamp dina jëpp baatu kilifa ci malaaka yi dégtu liitu yàlla jolli te borom bi moom ci boppam dina wàcce ca asamaan keroog dina ànd ak malaakaam yu am kàttan safara su ci yànji wër ko mu feeñ ngir mbugal ñi bañ a déggal xabaar bu baaxu sunu borom yéesu seen pey mooy alku faw ñu dàq leen fu sore borom bi ak ndamam lu rëy xarit yu ñuy déglu loolu moo tax sunu njàngum tey tudd tukkiteel àddina ak bésu pénc xam ngeen ne yéesu mi dee ñu suul ko mu dekk ca ñetteelu fan ba yéegoon na asamaan noonu dina dellusi ngir daaneel seytaane àtte waa àddina sunu boroom yéesu kirist mooy àttekat bu jub bi yàlla tànn mu wara àtte àddina tey ji yeesu bëgg na nekk sa musalkat te mën na ko nekk ci waxtu wii sax bés bi muy ñëwaat dina fekk mu yéex ndax bu boobaa àtte rekk a koy tax a jóg kon soo toogee ba bés boobu yéesu sa àttekat rekk lay nekk dootul mën a doon sa musalkat dafa am bés yéesu doon waare ci mbirum tukkitel àddina ba mu noppee mu dem toog ca tundu oliw ya noonu ay taalibeem ñëw ci moom di ko laaj kañ la loolu di am te lan mooy tegtale ñëwam yéesu tontu leen ne moytu leen bu leen kenn nax ndaxte ñu bare dinañu ñëw ci sama tur ne maa di kirist te dinañu nax ñu bare te it ñu bare ñuy mbubboo turu yonent dinañu feeñ nax nit ñu bare te gannaaw lu bon day law mbëggeelu ñi ëpp dina wàññeeku.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 falatan yi daje gannaaw mettitu bés yooyu le nag ca saasa jant bi dina lëndëm te weer wi dootu leer biddéew yi dinañu fàq daanu ci asamaan te kàttane asamaan yi yëngu booba firnde ji taxaw doomu nit ki feeñ ci asamaan te xeeti àddina sépp dinañu jooy dinañu gis doomu nit ki di ñëw ci niiri asamaan si ànd ak kàttan ak ndam lu rëy dina yónni ay malaakaam ak baatu lit bu dégtu ñu dajale ñi ñu tànn ci ñeenti xibla yi fa asamaan dale ba fa mu yem asamaan ak suuf dinañu wéy waaye sama wax du wéy mukk ni bési nooyin ya noonu lay mel bu doomu nit ki di ñëw ndaxte ca bés yi jiitu mbënn ma nit ñaa ngi doon lekk di naan góor ñaa ngi doon takk jabar tey maye seeni doom ba bés ba nooyin duggee ca gaal ga xalaatuñu woon dara ba keroog ndoxum mbënn ma di dikk yóbbu leen noonu lay mel ci ñëwu doomu nit ki mbokk yi ñuy déglu ñu bare umple ne àddina si dina tukki bés te yàlla àtte mbindeef yi waaye terewul nit ñiy dunde ni mu leen neexe faale wu yàlla ak ay waxam am ci ñoñ seen dëgër bopp ak seen bañ kilifteefu yàlla tax ñu naan lii daal léebi neen la tukkiteel àddina amul li am mooy ku dee rek la sa àddina tukki ñooñu nag ñoo tax kàddug yàlla naan mujjug jamono di ngeen gis ay tiiñalkat di topp seen bakkan dinañu leen tiiñal ci di leen ne ki dige woon ne dina ñëw anamu ndaxte bàyye nelaw nañu waaye lépp ngi dox ca njaalbeen nga ba tey fekk bëgg ñoo xam lii kàddug yàlla tax asamaan ak àddina yu jëkk ya juddoo ca ndox te dunde ko te ndox it moo labal àddina sa raafal ko te kàddug yàlla googu moo denc asamaan yi fi nekk ak suuf si ngir lakk leen yàllaa ngi leen di nége bésu àtte ba muy alak ñi weddi bu leen umple ne benn bés ak junniy at ñoo yam fi borom bi li yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit xanaa kay da leen a muñal ndax bëggul kenn alko waaye ñépp tuub seeni bàkkaar waaye bésu boroom bi dina ñëw bett àddina ni sàcc su boobaa asamaan yi dinañu ne rajax toj lu ne ci àddina lakk ba seey te suuf ak lu mu ëmb dina ne fànn fa kanam yàlla su boobaa asamaan yi dinañu lakk ba naaw ni pënd te lu nekk ci àddina dina lakk ba seey ni doom kon nag jàpp leen ne muñu sunu boroom muccuk nit la mbokki déglukat yi yàlla du waxantu su nee dina àtte àddina dina ko def ñiy nax seen bopp wala di jéem a gën a baax yàlla naan yàlla du sàkk doomu aadama yi ba noppi di leen lakk dina leen baal ñépp ci yërmandeem dëgg la yàlla aji yërmande la waaye bu nu fàtte itam ne yàlla aji sell la te sellaayam a tax ba mënula jege dara lu sellul noonu joxe na yoon wu nit mën a sell ci bàkkaar di ngëm ci yéesu Kirist waaye soo ko sàgganee nan ngay mucc ci mbugalu yàlla mënula nekk moo tax kàddu yàlla ne gëmal yéesu borom bi kon dinga mucc menn pexe mucc moomu képp la yàlla tëral léegi nag nanu jàll ci yeneen jukki yu nekk ci téere peeñu bi peeñu bi mooy téere bi mujj ci linjiil waaye taxul mu yées ci ndaxte mbind mu sell mépp ci gémmiñu yàlla la jóge te am njëriñ ngir jàngal nit ñi yedd leen jubbanti leen te yee leen ci njub kon peeñu bi téere bu xóot la ndaxte dafay yëgle liy xew ci mujjug jamono ak it ni àddina di tukkee dafay yëgal ndam lu rëy ñi gëm kirist te ñi gëmul kirist ñoom mu ëmbal leen tiitaanga ju rëy rëy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 ci segalukaayu mer mu tàng mu yàlla aji kàttan ji ci mbubam ak ci poojam bind nañu ci tur wi buuru buur yi kilifak kilifa yi bu junni at yi mate dinañu yeewi seytaane ca kasom te dina dem naxi xeet yi ci ñeenti xiblay àddina dina leen dajale ngir xare te dinañu bare ni peppi suuf ci tefes dinañu sam suuf sépp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 seen añ moo di déegu safara ak tamarax bi loolu mooy ñaareelu dee maa ngi ñëw léegi indaale pey gi ngir delloo ku nekk lu méngoo ak ay jëfam man maay alfa ak omega ki jëkk te mujj njaal benn gi ak mujj gi yéen ñi fóot seeni mbubb ngir saña lekk ci garabu dund gi te dugg ci bunti dëkk bi barkel ngeen sama kàddu yu kéemaane ngi nii waaye yow ndax am nga kóolute ci kanamu bés boobu ndax nangu nga yéesu ni sa musalkat ak sa borom xamal ne yéesu mi mësula bàkkaar la yàlla sëf say bàkkaar ngir yàlla mën la àtte ni ku jub gëm ko mooy jenn jëf képp ji tax ñu bind sa tur ci téereb dund bi amul jeneen jëf ju baax ju la mën a musal yonent yàlla esaayi wax na ne sunu jëf yu jub yépp dañu xasaw ni sagar yu tilim kon jenn jëf ji lay taxa mucc ci àtte bi ñëw ak ci safara su dul fay abadan mooy saraxu musalkat bi yéesu soo ko gëmee dinga mucc ku ko gëmul nag kàddug yàlla nee na dinga sànku ba faaw kon nag foo toll yow ndax wóor na la ne bind nañu sa tur ci téereb dund bi loo nara séqi ak yéesu sa musalkat nga bëgg mu nekk ko tey wala sa àttkat ëllëg rekk waaye bul dëgër bopp gëmal te mucc ci àtte bi ñëw li leer mooy soo bañee nangu yeesu kirist ni sa musalkat dina nekki sa àttekat amul sikki sàkka kon nag jërë ngeen jëf ci déglu bi su ngeen amee laaj ci njàngum tey mi bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li kàddug yàlla wax ne bésu borom bi dina ñëw bett àddina ni sàcc su boobaa asamaan yi dinañu ne rajax toj tey jii nag la jamono ju jekk ji tey la bésu mucc gi